koy defar kenn du ko defaraat. léegi nag bu leen muy góor bu ñu xalaat si kenn yaakaar si kenn mu ne bu ma jógee man man Macky Sall ñoru ma Ousmane Sonko ñoru ma Karim Wade ñoru ma Khalifa Sall ñoru ma kan moo ma ñor. Jean Fadil moo ma ñor da ngaa rek ko ñor man sax daa coono ma wala nga ay ñaata koy def mën naa jàppale Massamba naa Demba surtout tey Mawa la pare. waaw ñun soog a amut may jàppale Massamba wala ma jàppale maa Demba du ma ko def taluma loolu. loolu la ma jóg jàpp ñëw nañu genre ñu defar te ñu nekk ministre yëpp ah man de aw na ceeb bi ma maye. aw na xaalis bi ma maye. xam nga la am defar Joal la am la andi defar Joal loolu la am te nañ nañ ko baal bu baax a baax ministre yi ñu maye xaalis yëpp suñu alal la ñu maye suñu alal ñun askan bi te xam nga tey bu leen Joal tax nga jël ay millions def ay tànk def ko jël millions yooyu mënoon a defar hôpital millions yooyu mënoon a defar tali ngeen yow yéen askan ngeen yow bu baax a baax. parce que day gis ñu naan la gis nga réew dara waaw man si li ñu kan ko doon ñun ñoo ko doon waaw suñu xaalis dañ koy jox moom. mais suñu jiitu suñu dénkaane mu koy pasal pasalee. dëgg la dafay ko dagg moo tax mu jël alal jooju. waaw gis nga tey jii école yi sooxe nii amul stade municipal ndox naa mun na borom zo amul tal borom tali mu ne ko jël xaalis boobu dafa ko jox mais déedéet tey jii fi mu taxaw nii ñu jël si alalam ëpp na ay millions. mu jël mu sa alal alal joo xam ne suñu alal la kon nañu yeewu nañu yeewu ñun jigéen ñi yéenay fal yéenay fal ba mu def dama bëgg le 23 janvier incha allah ngeen fal ma man Ibrahima mii ñu ànd defal Joal loolu moo dëgg de danaa bëgg loolu ngeen tàgg ba waaye kon Ibrahima lay nekk ñëpp ay conseil parce que bu ne am na conseil bu nekk tey nag Ibrahima moo xewle moo tax Ibrahima saa aw mu fi Moussa Gueye la ñu mën fi Fatou Ndiou mën fi Omar Diouf Omar Diouf mën fi. voilà mais tey nag ñu naan mooy Ibrahima Kane. li mu wane dal la kan. maanaam suñu yëngu maa ngi koy yóbbante ngeen déglu li may wax baax. 2014 ma Pape Bougat ñu àndoon. waaw ma ngeen di Pape Bougat. dañuy dëkk ñu dañoo pare maa nga dem maa ñu dañoo pare maa nga dem Sibi. waaw moo Macky Sall ne ko ngeen balaa sama mbir mi Pape Bougat dinaa jox ma dem Sibi dañoo ko soxla. incha allah. waaw nga mu ne ko sama kanam ren ma dulaat ne ko léegi bopp laa ngay bopp am na nee sonn na doyal na man ngeen naa sama bopp damay dóor dóoraat damay dóor dóoraat dama koy dóor dóoraat ko dóor dóoraat dóor dóoraat dóor dóoraat dóor dóoraat dóor dóoraat dóor dóoraat benim kadar benim kadar benim kadar Wow, comme ni ñu ko waxee woon rek mbokk Joal Fadiouth Gassabine tey nag dañoo ñëw fii ci coalition gox yu di Youssou Kayré ñu ñëw fii ci Caritas fekk Ibrahima di kenn ci moom sori ko lool jege ko lool ci ñaari côté nag léegi nag ñu gis ne moom moo organisé bis bi ñu bëggoon am ak moom quelques questions rek bala ñoo dem ci Ibrahima ñu ngi lay nuyu. Mang ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax a baax nag te di ko sàkku ci yéen di am mbégte loolu ak contentement si seen teewaay ci sama bis bu màgg bi muy euh, tey ji sama taxawaay ci li nga xamante ni mooy gox yu bees may wane sama doole ci fi nga xamante ni mooy Joal Fadiouth sama population di wan askanu Joal Fadiouth di wax ni maa nekk seen biir xol man maa nekk si biir xolu askan wi loolu la yàlla dogal waaw ànd ak Youssou Kairé nag di liggéey si liste gox yu bees fas yéene euh, dimbali population Joal Fadiouth fas yéene na taxawu fas leen a jàppale si seen ay jafe-jafe waaye nag rawatina secteur de la pêche bi nga xamante ni man falaa laa féete parce que tamit loo xam naar euh, Mauritanie Mauritanie naar gën laa xam Mauritanie. man ñu xam ne yow mosuñu laa gis si projet te nga ñëw engagé ànd ak Youssou Kairé lan lañ bëgg a xam sa relation ak Youssou Kairé nan la demee.

mu nekk programme bi gën ci man bi ma gën a doy bi ma am confiance man nangul ko ñu ànd liggéeyu looloo ma booleeg Youssou Kayré waaw Youssou Kayré daf ma indil programme boo xam ni am naa yaakaar ni mooy sama programme bi ma bi ma opté woon ndax man dama ne nit koo xam ne révolutionnaire laa bañkat laa bëgguma kuy ger bëgguma ku ma jënd bëgguma ku bew bëgguma kuy jaay doole bëgguma ku rëy te dama gëm liggéey gis ko tak muy nekk un jeune ñu nekk ay moroom maase tolloo jamono mu xam ne jàmbaar laa mu nangul ma sama njàmbaar ba seet si ma xam nga nit loolu yëg-yëg la ki nga xamante daf la nangul sa njàmbaar teg programme mu xare parce que programme bu ñu la tegal ni la lii amul xaalis loo fi ñaqul sonnoo ko fi doo ko fi jële yow yaay uti xaalis indi ma uti xaalis indi keneen uti xaalis indi ñu wéyal programme bi loolu jàmbaar moo fay wuyu ji ma xam ne daf maa défier ma wuyu ji ko ànd ak moom ci liggéey bi te xam ne mooy programme mu dëgg bi parce que ñeneen ñi dañ lay woo di la neexal di la fay xaalis mais bu ñu faloo dañ lay fat dañuy fal seen bopp bàyyi la mais kii dafa ne ma kaay ñu ànd liggéey falu parce que gëm naa ne secteur bi nga nekk muy secteur de la pêche yaa ngi siy sonn guddeeg bëccëg suba ngoon te jafe-jafe yaa ngi gën di yokku ma gis la ngay dem au niveau national international di xeexal ñi nga xamante ni mooy mooy nappkat yi tey ma gis ni boo ñëwee am ndombal tànk fii ci mairie bi di nga leen mën a jàppale ci li nga xamante ni tey jii mooy wàll woowu moo waral tey ma dem wëri ndombal tànk boobu pour mën ci dimbali sama population rawatina gox bi ma dëkk muy Caritas nga xam ne lépp def fee sooxe Caritas gii ma dëkk tey ay jafe-jafe kese la loolu moo waral tey ma sóobu ci politique. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la encouragé di la wax li yombul nga ndaw boo ci nekkee boo nekkee ci dëkk nekk ndaw gëm sa bopp ndax lii wane nga ne gëm nga sa bopp parce que ñu bari dañoo xalaat naan tey lu ne affaire bi yàlla leen yàlla jàppale. non xam nga chef de bande cooki fin lay dee. Youssou mii dafa teg programme am gars yi ni Youssou amul caution ma ree rek noppi parce que boobu xamuñu ñan la ñan la Youssou àndal Youssou dafa ànd ak ay jeunes yu bëgg dëkk bi di fanaan ci dëkk bi di yeewoo si dëkk bi te lu ñu liggéey si dëkk bi delloo ko ci dëkk bi ñun ñi ngay gis suñu kawlal la ñuy tëdd ak suñu biir kër di boole suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm waa population bi di ñëw ñu leen koy jox. di leen si dimbali ñun dañoo yàgg dimbali population bi te du dañu am ndombal tànk te fas yéene nañu kon ne di leen dimbali yuusu mi kenn xamuloon ñan ñoo topp si ginnaawam moo tax bi loolu amee ñoom ñëpp daf leen a jaaxal parce que ay jeunes yu am volonté ñu mel ne ñoom Saada Aaw ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam du ma leen lim Saada ku ne xam na taxawaayam fii si Joal Fadiouth amul lu ko Joal jaralul ñun ñi dañuy tayle suñu bakkan saa ñu yeewoo dem si ay programme yoo xam ne dañuy am yaakaar suñu bakkan dootul dellusiwaat te dañ koy bàyyi Ngazobil bu ñuy génn ba dellusiwaat suñu bakkan yi saa su ne dañuy génn ñu ngi fayatal Joal-Fadiouth kon bu ñu demee ba gis programme boo xam ne si biir dëkk bi la wax kaa leen liggéeyal ñu sama waa ji programme boobu la ñuy ji ñu ngi lay jaar merci beaucoup ñu ngi lay xam naa danañ amaat beneen beneen rendez-vous ak yow toog yow waxtaan ak yow parce que amul lu bëree bëri loo war a jàllale ci sa candidat bi jërëjëf merci xam naa kon nañuy gisanteeg monsieur le maire am ak moom ay quelques questions rek

content ci li ngeen def initiative bi ngeen am toujours ma li yeb ci yëpp si bokk na si li suñu cause bi ñuy xex moy développement li yakana ci la prépa am Joal ay doomu Joal dëkk Joal créé lu melni dama leen remercier d'abord parce que man lolay xex xeex toujours ma ne rek Joal côté yëpp dafa war joggé dañu joggé fim a jóge fi mu nekk te lii si la bok kon siñ bo ma nga la remercier bu baax di content aussi si ñew fi Caritas Ibrahima kan nekk sama nawlé ñu bok euh, liggéey bi ensemble gox yu bees ñu bok nekk ci di liggéey parce que mu nekk borom gëm-gëm té man borom gëm-gëm ñoma ñor ma seet si waxtaan ak moom ba ñu d' accord si projet bi mhm. parce que projet projet Joal Fadiouth yëpp la mhm. man projet bi ma yëkkati du projet presque nekkul projet comme ni ko yi doon am avant mhm. bi projet boo xam ne pour man képp ku nekk Joal Fadiouth rek nga subi rek si nga bokk soit da nga si ñàkk a boole sa bopp mais si nga bokk parce que man oote ma leen loolu ànd defar Joal Fadiouth nga subi waaw ñu gis ne Youssou dañoo dañuy faral di dégg say wax lu bëree bëri mais mais dafa mel ne da ngaa jël euh, six candidats yi cinq yi nga jël menn madame Sibi Kessé def ko adversaire waaw loolu euh, li ko waral yomb naa expliquer ah les six candidats kenn moo si am dooma tànk mooy madame si mooy sama dama tànk man waxuma waxuma ak mom en tant que mom mom mom en personne non non non mais ministre bi laay waxal parce que euh, siis yep ñeneen ñi la ma la ma leen wax maa ngi ñoom a yem kenn yorul benn doomu tànk xam nga boo yoree doomu tank pendant des années donc bu ñuy wax ci yow dañuy wax ci yow objectivement nak pas wax rek pour wax man noonu du def lolu tax koy tuddi wax mom rek parce que dafa yor doomu tank bu yag ah mu jàppoon doomu tank bi yor li muy xëccoo nii doomu tank bi mu yor moko ko ëpp ma jàpp ne donte doomu tànk du pour jouer rek pour Sénégal yep la ministre la xamna je comprends bien mais dama sentir ñun Sénégal tàmm ñu ministre yi ñu gis yëpp seen dëkk yi seen localité yi presque ñoom ñoo développer sen localité té néew ñu boobu xëccëgu ñu maire souvent lool moo tax ma jàpp rek ma koy tudd dama koy tudd ci objectivement lima japp né ne am na lu ma def te defu ko ma jàpp ne kon bu ñu laaj ndax mënon na liggéey parce que man je pose toujours la question lan lay doyee maire Joal parce que fi nek nekk mën nga liggéey sans nga nekk maire man sax xam naa si baax li may wax parce que je suis un conseiller municipal kon je contrôle limay wax damay contrôle li may wax bu baax a baax ma nekul ma japp né rek mu mënon na liggéey sans mu nek maire légui nak Youssou wa Joal Fadiouth dañuy laaj ndax dañoo gis ne coalition yi coalition gox bees ñëpp ñi ngi def caravane mais gisaguñ coalition gox bees def caravane wala moom dafa préféré def porte à waaw waaw xam kenn ku ne stratégie bi ñuy doog a démarrer campagne bi euh, sama ouverture campagne dama ko démarrer pour ñaan suñu borom. ñaan suñu borom parce que ñun ñëpp euh, loolu lañu xam. suñu borom yàlla da dugg dara da ñaan ñaan ko dugg pour si bismillahi rahim bu see génn alhamdulilah léegi nag li des euh, parce que yaakamti nañ ko mais ñun kenn ku ne ak na ngay euh, man du ma du ma damay xool sama étranger ma jàpp man sama équipe li ñu ne moo ñu war a mbay ndam li jàpp ne moo ëpp solo moo nekkoon dugg si kër wax ak nit ñi moom la ñu commencé depuis 10 mois mais ba léegi mënuñu continuer ba tey dajaluñu ñu ñu ne loolu moo ëppal solo man daal di def xumbeel wala dara xëy na mais na caravane le 21 euh, janvier incha vendredi bii di ñëw nañu jox rendez-vous pour ne caravane vert lañ koy tuddee pour mën euh, ko def incha allah ah, kon naa ñi nga vendredi le 21 incha allah. waaw baax na kon euh, ñu ngi lay jaajëfal. di la remercier bu baax a baax di lay wax euh, en tout cas waa Joal Fadiouth ñëpp ànd nañ ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi sa taxawaay ak sa gëm-gëm parce que li nga yoon nii mooy gëm-gëm. te vraiment loolu yàgg nga koo xeex yàgg nga koo dox yàlla leen yàlla taxaw ñu ngi leen jaajëfal ñëpp mais nag bëggoon nañoo xam sa relation ak candidat yi xam naa mu nekk question bu mujj rek waaw ak ak ak candidat fi nekk ni sa relation naka la demee dëgg la xam nga bon loolu yëpp avant ma ciy bi damay profité rek euh, wax li tax li tax ma gëna ci yag na ko wax quoi damay répéter rek man dama né bo déggé souvent ma wax sama langage né ànduma ak Macky Sall Macky Sall ñoruma Sonko Ousmane Sonko ñoruma Khalifa Sall ñoruma mag eh, Ousmane ki eh, Karim Wade ñoruma di dama koy wax lolu pour fi ñi comprendre aussi waxuma pour japp na ñom seen politique doy ñu wala nangam non non non dama japp na Joal Fadiouth man sima gëm-gëm Joal Fadiouth ki koy défar du doon ñom dëkk bu né ñëpp dëkk ñokay défar té li élection locale la c'est pas présidentiel pour man si jafe-jafe yi Macky Sall xamul li nekk Joal Sonko xamul li nekk Joal te nekkul ñoo koy def ñun ñu dëkk Joal yi fi yeewoo suñu jaboot nekk fi ñun ñooy taxawul di Joal ba pare local loolu mooy local local du affaire parti bu jàllee nag ñu di kenn ku ne si parti bi nga gëm loolu moo tax man ma woote ne ñooñu ñoraguñ ma ba ma tal Joal parce que Joal fi mu toll man ñëpp dañoo bàyyi seen intérêt parti yi dajaloo pour sauver Joal génne day xalaat en même temps à partir de 2024 nan lay koy doolelee nan lay gagné mënoo boole xalaat boobu man dama jàpp ne mënoo boole xalaat boobu pare bëgg génne si Joal si boole xalaat en même temps nu may doolelee kii pour mu gagné Sénégal parce que ñun Sénégal lañ soxla toujours ma ko surtout Ousmane Sonko bi ñuy wax toujours am na ay passé fi ne waa passé fi ne sax ak man parce que ma leen expliqué idée bi dañu ne d'accord nañu dama leen Ousmane Sonko man Joal moo ma ñor d' bu Joal jàllee na ba pare lecture ak benn lecture ak sama équipe ñu xool kan la ñu mën a pour Joal encore toujours intérêt pour Joal jóge fi donc loolu moo tax mu demee euh, kon candidat yi si nekk tamit relation bi nga si relation candidat yi yi ah, pratiquement parce que bu dee Papis Gueye dèjà mu la njëkk a mon ami

Pierre Jo je le connais aussi xëy na ba tey moo ma gën a doon euh, moo ma politique la mun a wax parce que ba ba tey loolu ñun ñëpp xamanté nañ amuñu benn rela amuñu benn problème mais xëy na li ñuy ootee mu da moo xam am mo xaw am tuuti différence parce que moom tamit peut être dañu doon militer si benn parti muy APR mu doon mu don xëccoo récépissé ak madame Sibi bi xëy na euh, bi euh, sen président jox ko madame Sibi bi moom benen fum fum démat xam nga ba tey kon moom ci politique ba keneen keneen léegi bu jëlé Cheikh Seck aussi mu ci politique donc ñun ñëpp ñu am nañ relation ñëpp xamna naa ne Cheikh Seck sama bokku la Mamadou Ndiaye xamna ko je le connais aussi wa bi wa waa dëkk bi la kon ñu ñëpp xamante nañ madame si aussi xamna ko bu baax moy moy lima la wax amul benn problème am lu nekk su diggante bo xamné problème bu ñaaw la ñun ñep benn lañ ñoo xamanté ñun ñep mais xam ma lima yëkëti dama japp ne mo nexé du du baax du dara ma japp ne lima woté bokk la ñoom li ñu woté man dama woté rek man Joal Fadiouth Ngassou Béthio uniquement la la stable bi ñi ma topp yëpp loolu ñu ma toppee parce que ñep kenn musul politique boo seetloo ñi ma top yëpp kenn musul politique man leen non nañu di gëm and moo tax ñu bëri duñu comprendre même ñu ngi xeeb ñu ngi naan ma yow su coalition amul ay leader politique amul nii amul parti ma ko parce que li ma du parti te lii defar Joal bu ñu jàpp ne dafa am euh, question ba mu ne ma dama yaakaar ne yow ni ma gis nga gisee est-ce que Joal yéen ñii sa bi nga yor nii mën ko changer suba ma ne ko toujours ma sama langage ki nekkul ñi may gagnandoo ñoom ñooy gis vous Joal man dama jàpp ne pour mu jógee nekk képp ku di gagné da ngay au Joal autour autour d'une table ñëpp waxtaan parce que mën nga créer cabinet boo xam ne ëllëg même candidat yi xëccoo nañ ciy nekk bu nekkee gëm nañ Joal parce que souvent dama doon gis nga gagné ñu gagné ba pare ñeen di candidat yi doon xëccoo seen jël seen projet dem toogal seen projet bàyyi ki gagné man pour man comprendre lan mooy lan mooy local loolu toujours dama koy bëgg a jàngale ñu ñu ñu delluwaat si loolu beneen bi aussi damay gis ay candidat am na ñu may poser question dema lan nga def Joal lan nga def Joal man leen man mosuma toog ne man maa def li maa def li parce que politiquement dama ko seetlu damay suivre politiquement terrain politique koo xam ne am ambition d'ici deux ans am na ambition mu commencé nekk sur le terrain def ay bienfait def ay bienfait bien fait lu ngui koy def suma mu xey taxaw na defoon naa li defoon li jox na ma dëkk bi kon dafa mel li ma def dafa waroon ngir yalla pour man je comprends kon da ko def pour bëgg jot dëkk bi pour man li ngay def boo koy def te yalla tax pour man war la waroo sa tuddu parce que bukar sama doyen bi andal ma ngi koy remercier de passage bi ñi and ñuy ànd musuma dégg Boucar bien fait te ñëpp dëkk bi yëpp d'accord nañ keneen koy wax ah defal nañu defal nañu lii mais musuma gis la ma ñam kon ab candidat personnel bu taxé nan ma def na fi li non man du ma genre boobu loolu yëpp pour man war nañ ko daal kon baax na merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal xam naa danaa maata yow beneen jaraat sax incha allah Sifaa TV waa Sifaa TV tey nag ñoo ngi woon fii ci coalition gox yu bees woon Youssou Kayré gis ngeen ko comme ni leen ko waxee rek sànq ñi nga jóge ci perso ñoo ngi ci Youssou Kayré ñoo ngi xool yi ñeneen ak ñeneen en tout leen wax rek Sifaa TV yéen waa yéen ñu ñor yéen waa Joal Fadiouth ñoo ngi seen ginnaaw li ngeen bëgg ci la ñuy dox incha